بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقهم إلى يوم الدين suñu mbokk internet yu baaxoo safoo di suivre suñu télévision bi di Vital TV ci suñu émission bi di ñu ngi leen di nuyu ci ku nekk trop ak santam di leen wax nii namoon nañ leen ci rendez-vous bii nii nga xam ne ñu ngi leen koy jox chaque jour ci heure bi ci émission bi di albaxth chaque jour ñi fi invité ay oustaz yoo xam ne oustaz yu seen xam-xam màcc ci domaine yu bari la tey ñu war a waxtaanee thème bu ama am solo ñu invité suñu oustaz bi di oustaz mbay Faye ñu xam ko. fii ci Sénégal rawatina fii ci goxu Mboro bii nii xam naa dañuy bàyyi rek suñu naataango bi di oustaz Mouhamed nga xam ne si ne chaque jour moom la ñuy ànd ak ci émission bi mu nuyoo ba noppi après ñu soog a jox oustaz Mouhamed tafaddal alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wasalaamu ala xaatami al wal mursalin wa ala rasulillahi ajmain wa man ictasamu bi xablihim almatin mbokk yi yi suivre seen émission bu am solo bi di al bahs ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. oustaz Mouhamed tey ñu invité oustaz bu ama am solo oustaz bu xam-xamam màcc ci gox yu bari mu tudd oustaz Mbaye Faye xam naa dañ koy jox mu nuyoo rek ak mbokk internet yi bu par bu ko defee ñu dugg ci ci thème bi parce que tey ñu ngi war a waxtaanee thème bu am solo oustaz Mouhamed te mooy infidélité. oustaz dinañu ci ñëwal ñu gën xóot bu baax kon oustaz ñu bàyyi la nga أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ كم نينكو واخي سانخ تم بنيو ورا وقتان تاي موي تم بو خمسين بوكو واخي رك نيب دي نين كومبراندر مرام يو لينغا بغا وقت موي انفيدلتي أستاذ بنيو منون واخ انفيدلتي تي الإسلام ولا بوكو بنيو منون آه، ديفينير لان موي انفيدلتي ما معنى الخيانة لان نيو واخ أستاذ alhamdulillah alxiyaana suñ ko doon définir dañuy wax ne mooy fecci kóllëre fecci kóllëre mooy pacte boo nga xam ne danga ko signe ak ay nit mhm. muy pacte boo nga xam ne pacte moral la mhm. nga fecc ko loolu la ñuy tuddee alxiyaana mooy infidélité mhm. dafa bari nag ay forme yu bari jommul daañ ci dugg incha allah incha allah comme noonu nga ko waxee oustaz da nga ñuy ñëwal rek maanaam ci forme yi nga xame si ne moom mooy ci la ñuy mën a xamee infidélité waaw comme ni ma ko waxee sànq infidélité mooy fecc kóllëre ci forme yëpp ndax ki nga xam ne dafay fecc kóllëre benn moom ku li ñuy tuddee anani la mooy ko nga xam ne dafa dafa égoïste mom intérêt bopom rek lay samu du samalé li nga xamné moy intérêt nit ñi intérêt boobu nak moko yobbu ci li nga xamné mom moy infidélité infidélité mo xam ku ko jege la mo xam xarit lu mën ci doon mom du soralé li nga xamné mom moy sentiment doom aadama mais jikko la bo nga xamné dañuy wax ne euh, la axlaaq yi c'est immoral ben diine ci diine waxuma rek diine l'islam mais mbooleem diine yi nga xamne ay religion révélé la dañ ko ŋàññ lu ñu xaraamal la lu bon la tamit comme non nga ko waxe oustaz kon manam buñu mané wax infidélité mom moy alladhina yufuna bil ahdi wala yanquduna al mithaq ñoñu moy ñi fidèle buñu xolé contraire bi mom moy infidélité oustaz mohammed yow lan ngay wax ci li oustaz wax ni macha allah alhamdulilahi rabbil alamin oustaz définiral nañu lan mooy infidélité suñ ko bëggoon a wax moom mooy lan rawatina ci lislaam ah mu infi lim lim ñu gën a wax te mu ëpp solo moom mooy infidélité la infidélité infidélité jikko la boo xamante ne si ni ala kulli xaal jikko la bu ñu ŋàññi doonul jikko bu baax ndax égoïste amul kenn koo xamante ne si nii mën na ko comprendre al moroom ci oustaz ma jaxate mënoo comprendre man ak yow ñu nekk ci benn mbir chaque jour nga gis ni damay bëgg lépp loo xamante ne si nii njariñ la si mbir mi rek mu féetewoo ci man loolu kenn mënu ko comprendre mm-hmm, mm-hmm. te yaakaar naa loolu tamit dafay xaw dugg tuuti mm-hmm. ci ak naafeq su doon ak ah. ci ci ci lislaam dafay dugg ci ak naafeq uh-huh. ndax mënuma ni ndax chaque jour soo ko xoolee day fekk ni man Euh, dëppoo naa ak yow ci mel ni mbir. ci benn mbir mënuma dëppoo ak yow nag ci mel ni mbir ba nga xamante ne si jël nga sa kóolite jox ma. Uh-huh. ma jël sama kóolite jox la. Uh-huh. nga taxaw ba yàgg ngay sentir ni kat Mouhamed Diagne mi nga xam ne moo defoon ak yow lii waxoon ak yow lii tey jii jóge na loolu xoolu ndekete li ñu waxoon ak li ñu waxoon. Uh-huh. xooluma ci dara lu dul samay intérêt bopp. sa intérêt bopp loolu kenn mënu ko comprendre ah, kenn ah. kon yaakaar naa loolu mbir la moo xam ne dafay yàq mujj tamaa bi ah, bu comme li oustaz sànq rek amul benn diine bu ko nangu infidélité amul benn diine bu nangu nit ki comme ananiya bi mu wax maanaam di jëflante man may jëflante ak yow ak ci diine bu ma manti bokk di jëflante ak yow ci yenn yi kon oustaz bu ñu mënee wax infidélité maanaam fi muy fi muy gën a feeñee wala ñi nga xam ne si ni ñoom ñoo ko sefoo ñi ci ëpp ci ñoom ay munaafiq la ñuy doon xanaa. effectivement loolu mooy dëppoog li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax bi muy jàngalee mbiru naafiq yi mm-hmm. xam ngeen naa feq dafa ay forme yu bari la forme yu bari la mais daf ñu ko tënkal ci tënk bu am solo mu ne mandargay naa feq ñett la parce que mandar man naa feq ci biir lay nekk ci biir mais am na ay aspect extérieur yoo nga xam ne yooyu aspect yi ku mu nekk ci yow loolu ay jikko naa feq ay jikko naa feq ba sa jiitu mu ne fu mu waxtaanee balaa muy jóg wax lu dul dëgg wax lu dul dëgg ida xaddasa mu ne wa ida waada axlafa su ngeen déyalante dara mooy ngeen joxante rendez-vous wala lu manti doon déyalante ni dañ def nangam heure sangam bi sangam. Mhm. loolu du da koy forcer du ci ñëw mhm. wala da koy tardeel mhm. te du la jox benn ngànt beneen bi mu ne suñ ko wóoloo ci lépp lu manti doon mu ne dafay war xiyaana boobu nag mun na nekk confiance boo nga xam ne luñ ko déy la da koy siwal mun na den doon alal boo nga xam dañ ko ko dénk ah. mu luubal ko ak leneen ak leneen ak ah. leneen kon loolu effectivement dafay bokk ci màndargay ab naafiq effectivement jërëjëf oustaz xam naa kon dañuy dellu rek ci beneen question bu am solo te mooy lan la lislaam wax ci xiyaana ci infidélité lan la ci lislaam wax maanaam lan mooy àttey workat waaw euh, li li ci lislaam wax lu leer la mhm. ginnaaw xadis boobu mhm. am na fu yàlla subhaanahu wa di wax ni mhm. inna allaha yudaafiu an alladina amanu wal inna allah laa yuhibbu kulla xawaanin kafuur mu ne yàlla subhaanahu wa taala moom mooy défendre jaamam yi nga xam ne dañ koo gëm mhm. waaye maa ngi leen di yëgal ne yàlla day mhm. ku bañ la képp koo nga xam ne mhm. da ngay wor da kon ku yàlla bañ loolu rëbbum yàlla mooy aju ci kaw te loolu moo gën a moo gën a moo gën a sori sax li ñuy tuddee euh, mbugal ku yàlla bañ loolu àdduna bi yëpp lay bañ. lépp lu yàlla bind daf lay bañ. te yàlla subhanahu wa taala bi muy terminé ab daf koo lëkkale ak ak kéefër. ak kéefër ku la xawaanin. kafuurin kafuurin koo nga xam ne. dafay wedd kon lu garaaw a garaaw la. lu garaaw a garaaw la lu ñu war a moytu la daal. Oustaz Mouhamed. macha allah lii rek comme ni ñu koy faral di waxee. albax lii moo ko tax a jóg. génnee dëgg ni la dëgg ngi nii génnee aw neen ni la neen a ngi nii. te xiyaana. dafa doon mbir moo xamante ni si ni comme ni ko oustaz waxee dafa bokk ci kabaa'ir yi kabaa'ir dafa bokk ci kabaa'ir yi ni mu bokkee ci kabaa'ir yi ndax euh, xiyaana maanaam infidélité du caaki ni dafa yem rek sama diggante ak yow ndax yàlla subhaanahu wa taala daf ñuy digal rafetal si diggante nit ñi mm-hmm. su ma rafetulul sama diggante ak yow wax ba pare dindi ko wala ma fasante ak yow kóllëre ba pare rocci kóllëre googu noonu wala ma nga yaakaar ci man jox ma sa ay secret ma jël secret yooyu noonu changé ko ndax xasanul basri daf loon ci wax lu ama am solo wala xasanul basri daf loon ci wax lu am solo mu ni inna min alaamatil xawana an tufsi asrar an naas maanaam bokk na ci li nga xamante ni si ni dafay leeral Euh, mandarga yi comme ni ko oustaz waxee ndax loolu ay alaama la yoo xam ne si biir si doomu aadama lay nekk mais am na lu koy justifier mhm. su génnee nga mën a xam ne kat kii nii am na lu nekk ci moom ci jikkoy naafeeq ci jikko jikkoy workat mhm. li si xana xasanul bisri basri wax mhm. mu ni bokk na ci li nga xamante ne sii nii dinañ ci xam ni kat kii nii euh, workat la naafeq la ak yu ni mel mooy muy leeral asraar yi nga xamante ne sii nii moom la dëppoo woon ak nit ñi loolu noonu yonent bi sallallahu yàlla subhaanahu wa taala digal ñu ko alquran digal ñu ko hadis yu yonent yi sallallahu alayhi wa sallam digal ñu ko nga xamante ni si daf ñuy wax ni fonk leen seen diggante yéen ak nit ñi bu leen di jëwante bu leen di worante bu leen di xeebante bu leen di xasante yooyu yëpp ah, lislaam digal ñu ko kon bis bu ma jëlee sama décision pour wor la rek nan jàpp ne man maa ngi. Euh, waaw waaw maa ngi encadré maa ngi woo yàlla ci xeex ndax yàlla subhaanahu wa taala moom moo ñu woo ci rafetal si diggante nit ñëpp rafetal sa diggante ak sa ak sa ak sa moromu dëkkandoor ak sa rafetal sa diggante ak sa moromu ak sa moromu jilit comme noonu nga ko waxee oustaz Mouhamad maanaam bokk na ci alaamaay infidèle bi ne ñu ne nit kii nii ku infidèle la mais fidèlul ma wéetoo ak yow wax la sama secret nga génne tasaare ko parce que loolu léegi dafa bari ci jamono Oustaz Mouhamed Oustaz Mbaye Faye bu ñu jógee foofu dañuy dem direct rek maanaam aasaar yi nga xam si ne moom la infidélité di def ci société bi maanaam yenn jeexital la infidélité di def ci société bi. waa loolu lu bari la damay rebondir si li Diagne terminé sànq hmm. bi muy wax ne. wax naa sànq dafa bari ay forme nit wax la secret nga siiwal ko la chaque ne loolu du ko neex li muy jur rek mooy mbañeel diggante ci biir société bi junjoon naa sànq ne dafa am ay forme yu bari yow mi nga xam fonctionnaire nga nekk ci sa direction di liggéey ah, ah. sa responsabilité mooy état moo la yoral lu mu lay fay ah, mais saa yoo bàyyee loolu di laaj ger wala liñ la wax sant defoo ko wala carburant biñ la jox nga ciy dawal ci fànn ci anam goo nga xam ne bokk ak li ngeen loolu yaa ngi dugg ci biir xiyam Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah dafa jàng leçon bu am solo dafa am benn bis kenn ci gouverneur am yi ñëw seet si ko ñuy waxtaan ci lu aju ci wàllu état bi mu tàllam bi ñuy waxtaan ba mu demee ba lañ doon waxtaan jeex lu aju ci wàllu euh, administration bi yooyu mu commencé dugal waxtaan boo nga xam ne boppam la ne ko naka nga def ko waa kër gi mu daal di jóg ndànk fay loolu leçon bu mag moo ci nekk. jàngal ko ne bi ñuy wax ci lu aju ci wàllu état bi. kon courant bi ñu doon taal. loolu sañ nañ ko parce que si affaire état lañ doon wax. mais nag bu ñu demee bay wax suñu mbir bopp amatuñu droit di taal. courant wala énergie boo nga xam ne ci état bi la. parce que lii c'est privé. Ah. loolu leçon bu mag moo ci nekk. Ah. wax naa mas masalan ki nga xam dafa nekk si bureau ñu defal ko téléphone wala ligne boo nga xam ne si lay téléphoné su fekkee ne lu aju ci wàllu service bi la war na ci téléphoné parce que société bi moo ko fay fay mais su fekkee ne téléphone privé la na jël téléphone boppam comme li ma wax si gasoil bi si yeneen ak yeneen kon xiyaana yu bare bari la la chaque li muy indi ci société bi mooy société bu dellu gannaaw ah. société boo nga xam ne du dem fenn ah, ah, macha allah euh, kon sunu euh, suñuy jël leçon ci Omar ibn Abdul Aziz mhm. maanaam bañ a wor aw askanam. ak askanam wóolu gën ko wóolu. moo tax sañto utiliser dara. loo xamante ne si ni si mbiru boppam la. lu dul ci mbiru boppam la koy utiliser mais li nga xamante ne si ni mbiru askan wi la bañ leen cee wor moom moo tax mu fay làmp bi utiliser euh, carburant boppam wala lamp boppam pour mën a waxtaane ay mbiru boppam. dundal dëkkam. ak dundal askanam. moo ko tax mu def lee lu mais maanaam bu bëggoon a dundal boppam. du ko def. ngir rek bañ a wor. Ah. aw xeetam yi nga xamante ne bañ a wor bañ a aw xeetam foofu tamit infidélité mën na fa feeñ ñu mën a wax ni kon moom ko fidèle la. oustaz bu ñu waxee infidélité. ci lis ah, maanaam ci jamono jii rawatina fii ci Sénégal. li ëpp ci ñun ci suñu xel li muy dem mooy ci relation yi am ci diggante. zawju ak zawja. Mm-hmm. maanaam diggante jëkkër.

suñ ko doon définir mooy ku ñoom ñaar ku góor ki wala ku jigéen ki wala ñoom ñaar kenn ku nekk am partenaire boo nga xam ne dafay giseeg moom en dehors ci cadre boo nga xam ne du cadre charia. du cadre charia la ñuy tuddee infidélité ci biir ci biir sëy. ci biir sëy ah. bon am na nag ay ay ay cause yu koy waral. Ah. la sa jiitu mooy sori diine. sori diine. waaye itam sori li nga xam ne moom mooy ay jikkoy rafet ay jikkoy yaaram comme ni ñu koy waxee. su ko defee li ko li koy li ko li li muy jur la maanaam cause principale yi uh-huh. su ma ko mënee tudde noonu mooy su ñu demee ba sëy uh-huh. manque de compréhension maanaam communication amatul uh-huh. loolu dina jur infidélité manque de confiance amatul seen diggante mbëggeel ak respect boo nga xam ne respect mutuel la kenn ku nekk yoral sa morom respect bu ñu demee ba yooyu bari ci biir sëy souvent moom mooy indi moom mooy indi loolu su ko defee nag li mu yóbbee ku góor ki wala ku jigéen kii mooy à chaque fois muy wax lu dul dëgg. muy wax lu dul dëgg. parce que il faut que mu justifier loolu muy def. dina wax lu dul dëgg. dina dina wax lu dul dëgg mooy. sos wax sos wax ak yu mel noonu. su ko defee waaw. Euh, confiance mooy confiance rupture de confiance am na. loolu mooy li nga xam ne moom mooy yóbbee nit ñi. ci loolu te bu ñu xamoon danger bi ci nekk nag. Mm, ndax yàlla subhanahu def cee wax ay tëkku ay tëkku yu méttee Uh-huh. te mooy lu aju ci wàllu uh, infidélité ci wàllu sëy te mooy baat bi nga xam mooy njaaloo daal uh-huh, uh-huh. maanaam bu ñu bu ñu bu ñu mënee wax infidélité ci sëy daal maanaam lu ëpp comme ni nga ko ex uh, comme ni nga ko expliqué foofu lay feeñ mais oustaz dama bëgg xam maanaam infidélité ci sëy la fan lay fan lay feeñee maanaam ci ku jigéen ki lay feeñee wala ci ku góor gi mm, mën na nekk ci ku góor ki mën na nekk ci ku jigéen ki xam nga sëy dafa am ay li ñu tuddee ay fondamentaux mm-hmm. yàlla subhanahu wa ba muy bëgg a feeñal mën a bindam ak kàttanam ci mën a bind dafa ne man yàlla man maa def ci maa maa maa def ci yéen euh, bëggante ak soppante ma def leen ngeen di ay góor ak jigéen waaye ca mujjante la ay mu ne mu def ci seen diggante mawadda ak raxma loolu mooy sookul mooy secret ci sëy loolu nag saa yi ñu ko perdee rek nga xam ne sëy boobu commencé naa rëng-rëng mm-hmm. su ko defee manque de confiance mm-hmm. manque de communication mm-hmm. euh, loolu mun naa jur li nga xam ne moom mooy infidélité beneen bi tamit am na point bu am solo mooy kenn moo xam ku góor ki wala ku jigéen ki di exploiter point faible soit ku góor ki wala ku jigéen ki ah. loolu yëpp dafay indi nit yóbbu nit ki ci li nga xam ne moom mooy infidélité ah mais oustaz est-ce que danger bi gënut a maanaam gënut a bon ci ku jigéen ki ku jigéen ki di jéem a woor ku góor ki parce que bu dee ku góor xam nga ci lislaam may nañ la mas wa sulaasa wa rubaa maanaam bu dee ci lislaam may nañ la nga takk ñaar may nañ la nga takk ñett may nañ la nga takk ñeent kon nga dem di labat keneen loolu infidélité lañ koy tuddee wala maam loolu luñ ko mën a tuddee waaw xëy na du du lu ñuy comparer entre cour lor bi si ñëpp la effectivement si jigéen la la la la la gën a bare ah. beneen bi mooy mën naa mën na cee jël ëmb boo nga xam ne mu ci njaalo boobu mu am ci doom boo nga xam ne doom boo nga xam ne or mariage la beneen bi mooy ne mën na ci mën na ko jural ay feebar mën na ko wàll borom këram bu ko defee mu nekk musiba boo nga xam kenn du xam fu mu a ala kulli xaal baaxul ci ko góor ki baaxul ci ko jigéen gi ci wàllu wér-gu-yaram waaye tamit ci wàllu sharia ci wàllu sharia ah oustaz Mouhamed macha allah xam nga lislaam dafa organiser l'islam bayiwul nit ñi rek ñuy comme l'islam day contrôler lepp day contrôler biir kër contrôler jikko yi contrôler en tant que individu yi. contrôler kenn. Euh, wa taala bim inna <laughs> wala tu maanaam wor yàlla la woor yàlla mënul nekk yàlla subhaanahu wa taala wor gi nga koy wor amalu ko benn sens digal na la nag nga julli nga war a julli mhm. julliwoo yaakaar nga ni yàlla subhanahu wa taala nga woon mais sa bopp la la mbir yooyu dellu mais yàlla suy wax inna allaha laa yuhibbul qaa'iniin ak inna allah la yuhibbu kulla kulla xawaanin kafuur ak ay ayat yu mel noonu parce que yàlla subhanahu wa taala indi na ay ayat yu bari ci yooyu noonu ak comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee di leeral ayatul munafiq yooyu yëpp du delluwul ci l'islam mais ci relation nit ñi pour mujtama bi nekk benn ndax lu mel noonu la آه، عمر بن الخطاب دون ليرال بنا نحن قوم آه، أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا آه، عن غيره أزلنا أزلنا الله أزلنا الله ما نام بيون خير لنا وخمن تنسيني يلا سبحانه وتعالى دفنو تدل في الإسلام في الإسلام آه مي بس بوا خمن تنسيني يجيم دي ساق كلنا لول دين الإسلام بيه maanaam xam nga lislaam daf ñuy woo ci ci euh, fidèle woo ñu ci dëggu woo ñu ci gëm maanaam li nga xamante ne si moom ngay def wooñu si li nga xamante ne si nii moom mooy respecté ñëpp mhm. ak ñëpp parce que mënuma waxtaan ak ma jaxate ci nàngam ba pare tourné waat war ko ci loolu kon yaakaar naa foofu sama bopp laay defal mais amul benn respect bu ma wan kii di kii di ma jaxateloo kon loolu dafay indi ab rëng-rëng ab Euh, bruit bu baree baree bari bari bari ci mujtama ci mujtama yaakaar naa daal euh, infidélité li ci lislaam wax suñ delluwaatoon jàngaat mbiri lislaam xoolaat mbiri lislaam yaakaar naa ni mujtama bi maanaam société bi yëpp dina dal ànd nekk lenn parce que diinal islam ak li nga xamante ne si moom lay jàngale dafa leer te en même temps day gindi ki nga xamante ne si nii moom moo ko topp. merci beaucoup oustaz Mouhamed maanaam bu ma déggee li nga bëgg a wax mooy fi oustaz tàmbalee maanaam infidélité. jikko la boo ne si ne du ci mujtama bi du ci fenn fu ah, du ci fenn fu baxé té ki kay def jàpp ni suñu borom la koy def defu ko mais faire. la koy def té pour ñu aljanna ci kaw parce que mën nañ organiser suñu aljanna fi ci kaw suuf pour mu nek dañuy jël jiko bi nga xamé si infidélité ñu sanni ko ci gannaaw fidèle fidèle ñu mais infidélité sëyi aat yi maanaam boo gisee ñu ne la kii dafa bon rek jàppal ni kii jikko bu mu yor baaxul bu pour ñu continuer ci euh, ci question yi nga xamante si ni moom la ñu préparé oustaz ci jamono bii nii maanaam ñi nga xamante si ni ñoom ñooy utiliser baatu infidélité te di jéem a maanaam jàngale yoo xamante ne dañ koy jaarale ci infidélité maanaam ci jamono bii nii dañ ko gis fii nii ci ci Sénégal maanaam infidélité est-ce que war nañ ci mën a jaar pour di joxe ay leçons yoo xam ne si ne maanaam ci askan wi la euh, la war a mën a dem. waaw su ma comprendre question bi xam naa exactement sens question bi man dama siy jaar mooy ne bu njëkk li ñu doon tuddee théâtre moyen la woon pour pour sensibiliser askan yi société yi di leen conscientiser nga xam dañ nga jëlee ay leçons yu am am solo. ay leçons de morale yu bëree bare bare bëri. mais malheureusement temps yi liñ gis. loolu dafa changer complètement su ko defee au lieu que mu doon ay leçons yoo nga xam dañ ko cay tiré mais liñ fay jëlee lu négatif la. mooy ay jikko yu bon. parce que dafa am seen kenn ci seen borom xam-xam yi on oublie constamment que le son et l'image sont porteurs d'idées image bi ngay xol ci télé bi wala son bi ngay déglu du lu hasard hein. dafa am benn message bu muy jall dafa bëgg yow nga jël ko ñi nga ne mais euh, série yi nga ñu koy dawal suñu réew dafa am ay groupe yu nekk seen mhm. lobby nga am yu nekk suñ ginnaaw defe naa am na ci jamono yu passé rek kenn ci comédien yi ku doon kuy def théâtre def na benn vidéo ba nga xam ne tasaar nit ñi ngi koy tasaar ci réseaux sociaux yi mu ne dafa am benn scénario ba moom lañ ko bëggoon a joué loo waay c'est parce que ñooñu dafa am message bu ñu bëgg a jàllale pour xeex li nga xam ne mooy ay valeurs yu baax mooy xeex diine l'islam d'une manière particulière euh, ci at yële passé lu mat ay cinquante pays ma leen di wax nii lu mat ay cinquante pays ci réewu Europe yi Occident laa bëgg a wax daje woon nañu ci Hollande lan moo nekkoon jubluwaayu daje bi mooy fexe ba produire ay ay film ay série yoo nga xam ne liñ ci jublu mooy fexe ba euh, yenn société rawatina les sociétés musulmanes nuñ fa tasaaree

détruire valeur valeurs yi nga xam ne moom la ñu jànge ñun ci suñuy maam waxatuma laa sax li nga xam ne moom la diine indi woon ah effectivement oustaz comme noonu nga ko waxee maanaam dañoo seetlu ni pays yu bari wala réew yu bari bu ñu bëggee def théâtre maanaam bu ñu bëggee jàllale seeni seeni seeni culture bëgg jàllale seeni maanaam li nga xam ne si ni moom moo am ci seen réew dañ koy jàll dañ koy jaarale ci théâtre yi mais malheureusement fii ci Sénégal moom daanaka dañuy jël yeneen culture di ko utiliser fii nii ci suñu réew te yooyu yaakaar naa li muy yàq moom mooy ëpp li muy defar dañ naan ku bëgg a defar maanaam maçon bu bëggee tabax kër kër goo xam ne si dafa màgget da koy toj ba mu ba mu ba mu tasaaroo maanaam pour mu mën a ñëw tabaxaat ko mu jekk mais loolu kër nga ko mën def mais bu dee jikko bu xasee yàqu Oustaz Mouhamed jàpp naa ne pour nga defaraat ko lu jafe lay doon aha bu fekke da nga am loy wax fofu waaw loolu li nga xamanteni si mom la ci wax rek moy fessel ak leral moy gunu mooyu l'islam mm-hmm. l'islam suñ ko topé bu baax Deglu njangalem yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. deglu njangalem alquranul karim Deglu kilifa yi nga xamanteni si ni am nañu xam-xam ta diko wax mm-hmm. ñu deglu ñoñu yaakaar ni dinañu mëna am solution ci mbir mbir yu mel non parce que man yaakaaruma ni. man na maa bëgg a jàngale ay jikko yu rafet jikko yu baax tey def jikko yu bon jikko yu ñaaw wax yu tegginu ni mbir mii kat ci laa bëgg a jaar léegi pour pour pour defar déedéet ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy ki nga xamante ni si ni lépp lu leer moom mooy ki ko leeral képp kuy leeral man nga leeral mais dangaa topp ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leeral mais mbir mu leer rek fekk na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko te ci jikko ju rafet la doon ko leeralee ci ay kàddu yu rafet la doon ko leeralee kàddu yoo xamante ne sii nii képp ku koy dégg daf koy mën a daf koy mën déglu. te mm-hmm. dafay jariñ bu baax a baax. li ala kulli xaal li nga xamante ne sii daal moom nañ ko mën nañ koo wax ci mbir moomu noonu mooy nit ñi léegi jàpp na ni mm-hmm. ay mbir comme bëgg siiw wala bëgg Euh, am succès bëgg a am saraf. bëgg waaw dina leen tax ñuy génn. ci waaw di wax loo xamante ni si daal kenn xamul lan la. Mhm. te benn adib mhm. benn waxkat bu am solo mhm. te. nit ñu bari xëy na bàyyi nañ ko xel fii comme man falooti oustaz man falooti dafa am lum loon wax mu ni nit jug na rey jàpp ni rey gim reykat tedd nga moom moo tax masalan dama jóg nit dafa rey fii nit ma ñëw rey kooku noonu yaakaar ni rey gi ma ko rey kat tedd nga waaw tedd nga laa ciy mujj am mais fekk su demee ci kanamu juge yi moom lu mu fay mujj nekk ab criminel la fay nekk du fa nekk koo xamante ne si noobu lañ koy jàppee mais ab criminel lañ koy jàppee wala nga gis koo xamante ni sii nii sax dafay wër saraf jàpp nii saraf gi muy am noonu ci infidélité la koy amee ci wor ci nàngam ci nàngam nan nan dem ki nga xamante ni si nii dafa jàpp ni ci loolu lay amee saraf fen wor ak yeneen yi nga xamante ne si nii moom mooy définir infidélité topp loolu ba am ci li nga am kooku xëy na am na ci alal xëy na am na ci succès siiw na mais kooku noonu su jàppee ni moom musrif la ku tedd la sarif la kooku mu ngi nax boppam mais parce que affaire du tey waaw ëllëg la bu ko sa njaboot di see bu ko bu ko sa njaboot di see bëgg nga jàllale benn leçon bi naka ngay doonee ku ku na kat tabax nga ci ay immeuble mais bis bu sa njaboot ñëwee wala ñeneen ñi nga xamante ne ci ñu ngi lay xool ndax dinañ la nawloo loolu foofu dañ war a egg ba maanaam am jéem a am xalaat yooyu noonu. pa ay xalaat yoo xam ne kenn. jërëjëf Oustaz Mouhamed maanaam bu ñu mën bu ñu mënee talxiis li nga xam ne si ne moom nga bëgg a wax moom la Oustaz bëgg a wax ci yi nga xam ne si ne moom moo xew fii ci suñu réew mi di Sénégal moom mooy dañuy bëgg di jàllale yenn leçons yi mais dafa mel ni dañoo dañuy utiliser yoo xam ne si ne maanaam du seen arme. mais dañuy jël yeneen arme bëgg koo utiliser pour jàngal ñi nga xam ne si ne moom mooy moom mooy moom mooy Sénégal te Sénégal maam dafa am ay jikko yoo xam ne si ne warul ràpp vous nit ñi bu leen di suivre ci day euh, day kon manam nit ñi nga xamé si suivre yoy ak ñi nga xamé si jouer xel bu baax oustaz xamna ñi suñu émission. Hmm. parce que temps bi nañu ba paré luñ ci rek ni. li day euh, parce que li duuf ci nak bi ci bi hmm. dañ lay jox rek dernier cadeau. waaw ma li may mujjee ma reveniraat si li ma waxoon sànq rek su ngeen ma ko permettre ñooñ ma waxoon ne dañoo dajale woon ci Hollande mm-hmm. budget bi nga xam ne moom la ñu génn c' était vingt et un milliards millions de dollars xam ngeen ah. loolu xaalis bu ndaw c' est pour li nga xam ne def ay production yoo nga xam ne tasaare ko ci réew yi nga xam ne mm-hmm. plus particulièrement yoo nga xam ne c' est des sociétés musulmanes mm-hmm. fexe ba film yooyu def fa jeexit bu baax a baax a ah, baax ah. man jàpp ma ne comme ni ngeen ko waxee ni ñii jàngale mais dafa am ñu nekk seen gina yàq moo leen tax a jóg ah. le dire ah. mm-hmm. ñu wax ko yàq moo leen tax a jóg mm-hmm. parce que nag ay film boo nga xam ne ay di tudd ay baat yoo nga xam ne vraiment li da xaw naa ñaaw ah non seulement yàlla bugg ko da koy merloo mm-hmm. jëmalewul fenn kanam te loolu boo moytuwul ay musiba rek la ñuy jural te xam ngeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na aw nit aw xeet du ñu deñ di def ñaawteef di ko fësal ba yàlla wàcce ci ñoom ay feebar yoo nga xam ne seen ña leen jiitu woon xamuñu est-ce que kon ñun li ñu dund du conséquence loolu ah mm. ay toog si kër mm. di sëy loolu dafa xewi toog di sëy di muñ loolu dafa xewi da ngaa war a wut koo nga xam ne ah, benn waafee ah, mu lay bégal nga ah, loolu loolu mooy lan loolu ban message yooyu la ñuy jàngale bëgguma tudd benn kii mais ci film bi bi li ñu doon wax sànq ni ngeen tuddee thème bi mm. su ngeen duggoon tey tàpp tàppee google nga bind infidel comme ni nga ko waxee di nga gis ne lii ñuy lii xew fii ci réew mi loolu copie collé la. copie la. boo bindee google. Uh-huh. tàppee google nga bind loolu nga wax mooy infidèle. Uh-huh. di nga gis ne film boobu ñu ngi koy dawal France depuis janvier deux mille dix neuf mu ngi fa doon daw. Ah. depuis janvier deux mille dix neuf. Uh-huh. bi muy doom doog a commencé premier épisode bi daw na lu bari. mais li mu am ci ay vie ci YouTube bariwul. ay six euh, onze mille vues gars yi non li muy doxee dafa yéex nañ ko xoolaat ñu defaat ko façon boo nga xam ne bu gën a yées ñii li ñuy def nii dañuy copier coller rek dañuy copier coller ki réaliser film bi DJ le le le pêcheur la tudd moo nekk TF1 moo ko réalisé ki ko réalisé Sénégal Ibrahima la tudd malheureusement léegi ñu ne nañ ko def ci façon boo bu gën a ñàng mais trois semaines la daw premier épisode bi am nañu lu mat un million huit cent mille mm. vues ci ci YouTube mm, mm, loolu moo lay won ne dafa am ñu nekk si ginnaaw dafa am message boo nga xam ne dañoo am objectif bu ñu bëgg ci lool su ko defee li ñuy wax rek mooy euh, fàttali ñi nga xam ne ñooy parent yi mm-hmm. benn borom bi azza wa jalla dafa ne yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naar mu ne yéen ñi gëm yàlla fegal leen seen bopp safara fegal ko seen njaboot kon parents yi nga xam ne euh, dinañ ñu dégg incha allah ci ci ci lii ñuy def nii mm-hmm. mooy ne film yooyu ñu tere ko seeni xale ñu bañ koy seetaan mm-hmm. parce que même ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy defar ay film dafa am ay film pour xale mais loolu du pour mag mm-hmm. parce que film yooyu ñuy teg da gis ne yor interdit au de dix ans dix huit ans nangam ak nangam mais film yoo nga xam ne yow boo koy seetaan ak sa njaboot da nga am na séquence da rus li nga mën a def rek mooy jël télécommande bi waaw bu ko defee nag yooyu ñu bàyyi ci xel mm-hmm. ñu xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ñoo xam ne kenn ku nekk sàmm nga te bu ëllëgee dinañ la laaj mm-hmm. la nga doon sàmm mm-hmm. kon dañoo war a protéger suñu njaboot bañ leen a bañ leen tere leen ñi seetaan film yooyu utal leen yeneen yoo nga xam ne boo leen tere li tamit jox leen parce que soo nee du ma ut tele si kër gi wala ba dañuy génn si kër gi mais parents yi war nañu egg foo nga xam ne tey nag day am bis boo nga xam ne da ngay fay tele bi nga discuter ak wala sax bu ñu seetaani film ba pare pour xol ndax bayina ay conséquences wala ay ki yu négative nga len mais nan ngeen jàng ci film bi nga discuter ak ñom su fekkee ne lu bax la nga bayi su fekkee ne ay xalaat yu bon la nga corriger ko ko defé ñu ñu ñon lañuy mëna protéger xale yi ñu xamné ñi nak dañu am objectif bo nga xamné moy yàq mo len taxaju ginaaw lolu ma loolu maa ngi rafetlu bu baax ci émission bi di ñaan yàlla subhanahu wa taala li ngeen def yàlla barkeel ko yéen xam fi ngeen bëgg a yegg yàlla na leen fa yàlla allahumma amin allahumma amin merci beaucoup oustaz kullukum raain wa kullukum masulun an raiyati an raiyati jërëjëf oustaz xam naa oustaz Mouhamed macha allah ni oustaz tëjee am na solo waaye li ñuy leeral rek mooy ñun juguñu albaxth comme niñ koy waxee rek liñ jug mooy li ñu tax a jóg mooy leeral nit ñi xamal nit ñi jàllale nit ñi ba nga xamante ni si nii dinañ xam yoonu yoonu siraatul mustaqim ndax yàlla subhaanahu wa taala dafa leeral yonente bi salallaahu alayhi wa sallam dafa leeral yoonul mus siraatul mustaqim ba pare nit ñu mu ngi nii loolu rek moom moo ñu tax a jóg mais juguñu pour xas benn nangam wala nangam mais noo bëgg a jóg leeral askan bi ni leen lii mooy dëgg nan ci topp lii mooy aw safaan nan ko bàyyi ndax loolu donc moom mooy seen objectif ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu waxoon ni balligu an wala aaya loolu rek moom moo ñu fi bàyyi di leen wax alaykum wa rahmatullahi wa alaykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu oustaz Mouhamed comme nan nga ko waxee rek di la jaajëfal di jaajëfal oustaz bu baax a baax a baax ci yi nga xam ne si ne moom ngeen jiital ak yi nga xam ne si ne moom ngeen moom ngeen tëjee comme li oustaz wax sànq rek waajur yi ñoom ñooy sàmm xale yi kullukum raain déet kullukum raain kullukum masul wa kullu raain masulun an an raayatihi xam naa maa ngi koy xaw a jaxasi tuuti ak yow li nga wax sànq balligu anni walaw walaw aaya ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax di jaajëfal oustaz ci li nga xam ne si ni moom la ñu yombal ci ci ci ci nangu gi mu nangu émission bi am na solo bu baax a baax xam-xam bi bari na yàlla na yàlla gën a gën a barke te gën a yokku taxawaay bi incha allah xam naa kon ñi nga xam ne si ne ñoom ñooy suivre te bëgg question boo xam ne dañ koy laaj mën nañ ko bind ci commentaire yi ñu dinañ ko dinañ ko topp indi leen ci ay saafara incha allah képp koo xam ne si ne tamit dégg nga fi loo xamee si ne maanaam neexu la ñun jubli wuñ ci loolu in nuridu ila al islaha mastataana wa ma tawfiqiya illa billah wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatu